Korent saar juróom benn it bu kenn ci yéen amee lëj-lëj digganteem ak mbokku taalibeem lu tax muy dem ci àttekaay yi ñi xamul yàlla te bañ a dem ca gaay yàlla yi ñu àtte ko xanaa dangeen a xamul ne gaay yàlla yi ñooy àtte ji àddina te ndegam yéenay àtte ji àddina lu tere ngeen mën a àtte mbir yu ñàkk solo yi xanaa leen ni nooy àtte ji malaaka yi waxatumaak mbiri àddina si bu ngeen amee ay lëj-lëj yu mel noonu dangeen di wuti ay àttekat ci ay nit ñi amul wenn yoon ci mbooloom ñi gëm ma ni kon war ngeen a ruus xanaa amul ci seen biir kenn ku am xel ku mën a àtte mbokkam yi waaye defuleen loolu mbokk a ngi layoo ak moroomam rax ca dolli ci kanamu ñi gëmul lañu koy defe laaya bi sax wone na ni bàyyi ngeen seen warugar lu tax muñu leen sax tooñ yi ñu leen di tooñ lu tax far leen ñu sàcc leen waaye yéen sax yéenay tooñ ak di sàcc te seeni mbokk ngeen koy def xanaa xamu leen ni ñu jubadi duñu bokk ci nguuru yàlla bu leen ci kenn nax ñii doxaan walla xërëmkat yi ak njaalookat yi ak góor jigéen ñi ak ñi ko nangu walla sàcc yi ak ñu bëgge ñi ak màndikat yi ak ñiy xaste ak njublaŋ yi du ñu bokk ci nguuru yàlla te am na ñu meloon noonu ci yéen waaye yàlla fóotal na leen seeni bàkkaar sellal leen àtte leen ni ñuy jub ci turu borom bi Yesu Kirist ak ci doole xelum yàlla sunu boroom am na ci yéen ñu naan sañ naa lépp waaw waaye du lépp a jariñ nit sañ naa lépp waaye duma bàyyi dara mu noot ma am na ci yéen ñu naan ñam mooy jariñ biir te biiree jariñoo ñam waaw te yàlla dina leen yàq ñoom ñaar yépp waaye sàkkuñu yaram ngir mooy yàlla dañu ko sàkk ngir muy jariñ borom bi borom bi di ko jariñoo te yàlla mi dekkal borom bi dina dekkalit it sunu yaram jaare ko ci dooleem xanaa xamuleen ni seen yaram ñooy cëri kirist ndax kon damay jël cëri kirist def ko cëri jigéeni mooykat mukk xanaa xamuleen ni kuy ànd ak jigéen juy mooy dafay booloo ak moom nekk benn ndaxte mbind mi nee na ñoom ñaar dinañu doon benn waaye nag kuy ànd ak borom bi xel yi dañuy booloo nekk benn daw njaaloo bépp bàkkaar bu nit mën a def du laal yaramam waaye nag kuy njaaloo dafay bàkkaar di lor yaramam xanaa xamuleen ni seen yaram mooy kër yàlla gi ginnaaw xel mu selli maa ngi ci yéen te yàlla leen ko may kon moomu leen seen bopp ndaxte yàlla jot na leen ak njëg gu réy kon nag màggaleen yàlla ci seen yaram